jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk yi suivre 5M TV Sénégal dal leen ak euh, jàmm ci seen euh, seen bi nga xam ne saa bu nekk rekk yéen a ngi toppee la nga xam ne rek moo di xibaar euh, jamono ji nag mbir yaa ngay doy waar foofee nga xam ne rek moo di ca diwaanu ndakaaru ndaxkat jamono ji nag ñu ngi fay nemmeeku jàmmaloo yu métti ñuy taal la nga xam ne rek di ay oto jàmbur di baare la nga xam ne rek moo di yoon yi kenn mënul dem kenn mënul dikk foofee nga xam ne rek moo di ca diwaanu ndakaaru ginnaaw ba nga xamee ne rek dal nañu jàpp jàpp ka nga xam ne rek moo di Ousmane njiital Pastef niki tey ji nag ñu war koo atte foofee ca tribunal bu Ndakaaru tey ji nag foofee nga xam ne rek moo di ca diwaanu Ndakaaru nag daan nay tàng jër fa xam ne rek moo di ca Kër Massar ak Mariste ak fa nga xam ne rek moo di ca Pikine ak fa nga xam ne rek moo di ca Mariste fépp nag jamono ji nag daat nay tàng jër ak itam fa nga xam ne rek moo di ca autoroute à bi jamono ji nag dañu ko taal baara la nga xam ne rek moo di yoon ba nag kenn mënul dem Eh, kenn mënul eh, dikk foofe nga xam ne rek moo di ca diwaanu Ndakaaru nag jamono ji nag ñu ngi fay nemmeeku jàmmarloo yu metti jamono ji ginnaaw bi ñu jàppee seen leader di Ousmane Sonko jamono ji nag jàmmarloo yaa ngi commencé nank par nank di xaw a doy waar lool foofee nga xam ne rek moo di ca diwaanu Ndakaaru